ginaaw loolu noo ngi woon ci buntu ngëm ba yaakaar naa keroog nag jeexal nañ ko wax nañ ci lu bare bare bari taxaw nañ ci lool waaye ngëm day lu am solo day loo xam ni moom dara daa mënta dem mu des te mooy li li li lii maye ak mucc bu ñuy wax diine diine dëgg-dëgg mooy ngëm gi rek buñ ko wax diine buñ ko wax mooy ngëm rek ngëm itam mbir la moo xam ni ñu bari mën nañ ko wax te duñ ci àgg dëgg-dëgg ngëm ñu bari mën nañ ko wax te duñ àgg ci dëgg-dëgg ngëm ngëm it bari nay jeexit bari na loo xam ni da koy def ci nit ci ay melo yu rafet ak ay mbir yu am solo yoo xam ni digganteem ak boromam ak digganteem ak nit ñi waaye yooyu itam bala mu ko def daa dëggu ci xolub nit ki mi ngi mel ne doom yi nga xam ne moom la docteur yi bindal rek doom yooyu luñ la ci lum ci baax baax ak lu mën a mën a faj bala nga gis jeex di danga ko danga ko jëfandikoo soo amee wéradi koo xam ne dafa la sonal nga dem ci docteur mu bindal la garab ne la doom bi da koy jël doom boobu fii ak jëloo ko ba noppi doo doo tàmbalee gis jeexit ji maanaam koy jëfandikoo nañ la ko waxee ci anam gañ la ko waxee ci jamono jañ la ko waxee doo ko gis nag jeexit ji nga gis fu dee ak wér yàlla tàmbali la ko defal ak yéen demee ngëmit noonu la ngëmit des koy am ba noppi doo gis jeexit ji waaw li fekk dëgg-dëgg ngëm moom duggut sa xol jeexiti ngëm ak yiñ ci wax yépp mën a ko gis mën a ko dund itam man nga koy wax nag ci saw làmmiñ waaye àgg ci moom doo ko def moo taxoon Sëñ Tuubaa daa wax béyt yi nga xam ne wax naa ko fii ba tàyyi mooy li mu wax ne laakin na ma tawxiidu xayru duxri xayru duxri li saxsi fil qabri wa yowma nasri lépp lu waay am day am tawxiid moo moo ko gën maa lu waay di am rek am tawxiid moo ci gën lu waay di denc ngir jëm ëllëg capital bi waay am capital bi gën a kawe ëpp solo mooy capitalu tawxiid te mooy gëm yàlla wéetal ko nongu amam gi àdduna bi ñu toll nag yàlla def tawxiit moom moom yàlla def ni ma ko waxee ci jataay yi weesu rek dañoo romb ñaari xarnu ñaari siècle yoo xam ni day xarnu weddi yàlla daanaka ndax nit ñi seen mbir li cëpp dañ koy tënk ci li ñuy wax science science ak li xam-xam mm, génne ak yu dem noonu te borom xam-xam yi ëppoon ca jamono yeenu weesu ñaari xarnu yooyu ñu cëpp dañoo jëmoon ci wedd yàlla ndax dañoo jàppoon ne lépp mi ngi bawoo rek ci li ñuy wax li ñuy tuddee matériel ñoom matériel mooy dara waaye jamono jii nag yàlla def na doomu borom xam-xam yi weesu nañ dara boobu dañuy atom atome doon naa ko wax ci addiye mooy lépp loo gis rek ay fepp moo ko composé fepp yooyu nag lañu tuddee atom atom lañ ko tuddee ci tubaab bu dee ci arab moom lañ wax darra darra boobu yi nag bi ñu demee ba dugg ci biir darra mu mu jur yeneen xam-xam yu bees yoo xam ni day wax li ñuy wax jus jusay maar taxta darriya lañ ko tuddee fepp yi nekk ci biir darra boobu yi bañ ca duggee loolu moo soppi kanamu xam-xam nga xam ne dañuy gëmaat jëmaat ci gëm yàlla ndax dañoo gis ne matériel ndekete du maanaam matériel am na waaye leneen lu dul matériel am na fi ne foofu la adduna bi toll mooy gëm nañ ne léegi moom matériel kese du mbir mi ne loo xam ni ay mbir yu baree bari yu am yoo xam ne duñ duñ ay mbiri yu matériel te loolu mi ngi tàmbalee ci ni ma ko waxoon borom xam-xam boobu ñu tuddee Albert Einstein borom xam-xam la boo xam dafa def théorie bu am solo boo xam ni mën nañ ni adduna sépp ñi ñuy wax ci xam-xam faw ñu jël ci moom dara nazariya boobu muy théorie boobu mu def ñu tuddee ko ak nisbiyal xas ak amma ñaari théorie yooyu foofu la adduna bi tàmbalee soppi ko ndax ci misaal dañoo gis ne tey lépp ni ma ko waxee ay fepp ko composé waaye am na loo xam ni lu mel ne lumière masalan daw u daw u mooy lumière yaakaar naa nañ ko tuddee waaye daw rek ni nga ko xamee comme lumière làmp bi loolu mbir la mu am waaye ndax dañ koy jàppe madda wala dañ koy jàppe taq buñ ko jàppee madda mooy kon lu matériel la buñ ko jàppee jàppee taq mooy lu dañuy wax énergie lay doon boo xam ni du lu am jëmm xaw madda mooy lépp loo xam ne am na jëmm rek nga mën caa teg baaraam loolu lañ ko jàppee madda waaye dafa am mbir yu am yoo xam ni duñ madda boobu moom def na ci jàngat yu bari eh, Einstein ba am ci sax li wax jaayisatu Nobel ci la nag yeneen xam-xam juddoo li wax li wax keroog maa ngi koy tudd fii lu mel ne physiawul quantum physiawul quantum mooy dañoo gis ne tey jëmmi lumière boobu léeg-léeg mu nekk madde léeg-léeg mu nekk mat lu matériel waaye léeg-léeg mu nekk tàq mooy énergie kese waaw léeg-léeg mu nekk lu am jëmm waaye léeg-léeg du am jëmm yaa ngi dégg. léegi nag ñoom ñu gis ne li koy def léeg mu am jëmm te mooy mu nekk màdd ak li koy def mu bañ a mu bañ nekk màdd mooy yow mi gëstu rek su fekkee da nga kii gëstu dafa jàpp ni lii màdd la matériel la day fekk mu nekk matériel su fekkee day day daa jàpp ne lii énergie la tàq la day day fekk mu nekk énergie <laughs> loolu xorom la mooy kon yi am ni am na ci yoo xam ne biir maanaam fepp yi composé mbir yooyu ca biiram énergie ya ca ne bu la neexee yow mi gëstu ci sa xel ak sa xam-xam ak ni nga ci ñëwee mën nga ko def maa dana mën nga ko def tàq loolu xoromu la loolu bokk na ci li soppi daanaka fi ne xam-xam fi ne nii xam-xam bu bu yaatu la bu ñuy wax physique quantum nga xam ne borom xam-xam yi ci ne dañuy wax ne képp koo xam ne yaa ngi ciy gëstu te jaaxle dikkalu la nga xam ne jaaxle woo moom fi ne te day dañuy dañuy gis ne sax day am ñaari dara yoo xam ne bii day nekk fii nii manam zarra ben fep atom bo xamni fep yoy nek ci bir muy protonade yeeg ak neutronade yeeg ak electronade yi ba ci yëcca biram ay photonade yoy nan e jam bo xamni xam ne mën naa nekk ba pare nek ci benen place bu sori ci espace bi maanaam mën nek di galaxy bi nek ci benen galaxy bu sori tay ben fep nga xam nek nekkandoo ñaari ñaari beurep lan <laughs> nag ci la ci la moo soppi niñ deggewon déggee woon xam-xam nga xam ne moom fi amul sikkam borom xam yëpp def nañ seen xel ne am na lu matériel loo xam ne maddi la am loo xam nag xayru maddi waaye xamuñu law lum doon <laughs> ak ni xam-xam ne am nañu tuddee ulumul kawn ma ne gis ne dem li am ci espace bi yàlla dogal na tey li ci matériel daa tuuti maanaam biddew yi ngeen gis ni bu àndee xam espace bi day tàllaloo di gën di di tàllalu di yaatu noonu muy tàllaloo nag doxin wi muy dox rek da yem kemm nga xam ne mooy tax mbir mi man fene te dara du yàqu li tax du nekk fii ci biddiw bi am jàmm dara yàquwut mooy ne kawnu bi mooy iniweer bi ni muy doxee ni muy tàllaloo dafa yem kemm nga xam ne ëpput bu gënoon yaatu fi ne tey mbir yi day gën a sore maanaam suñ suuf si baa sore naag jant bi bu yàgg te baa moom mën nañoo way maanaam bu gënoon a eh, gaaw itam noonu mën naa indi lu mën naa mën naa indi mu gën a mu gën a gaaw fàcc mu mel ne mbuus goo xam ni dañ caa dañ caa def ay ay vidéo am na nu muy tàllaloo day day day fëtt nu muy gën a yeexe day dajaloo te baa lépp day tàng jëpp kenn du fi mën kenn du dund sax léegi nag noonu muy tàllaloo dañoo gis ne li ko téye du matériel kese ndax li ciy matériel mu ëpp ëppul 4 pour cent téeméer bu ne ñeent pour cent yi mooy matériel borom xam yi gis ne kon am na lu ñuy wax madda sawda mooy matériel bu ñuul boo xam ni bu lëndëm boo xam ne xamuñu lu mu doon moom waaye mi ngi ci waaye loolu bañ xoolee ñu gis ne loolu it kese mënu ko téye ndax loolu 22 pour cent yi rek lay doon mooy ñaar fukki ñaar fukki téeméer boo jël ñaar fukki ak ñaar mooy loolu mooy madda sawda ñu ne nag kon am na beneen taaqa sawda benn énergie boo xam ne dafa ñuul ko nga xam ne mënuñu koo gis teg bët teg bët boo xam ni moo ko téye yooyu nga xam ne loolu soixante douze soixante quatorze pour cent la ci la ciy toll nga loolu lépp bu àndee mooy mooy mooy mën a téye nag doxiinu ak nekkiinu kawnu bi ngir doxiinu ni muy tàllaloo mën a mën a tegu ci yoon yooyu yu xoromu la waaye yu am solo la ndax dafa jur fi na nii ci mboolem scientifique borom xam yëpp seeni gisin sotti ko ñu yëg ne adduna bi ak li na nii du matériel kese <laughs> yi ma wax ne ay juróomi xam-xam la yoo xam ne bu ñu àndee moo soppi doxinu xam-xam am na beneen boo xam ne moo ci moo ci moo ci gën a kii mooy dañuy wax al biologia al juzaiya lañ ko tuddee ci misaal boobu sax moo ci ëpp solo nga xam ne lépp loo gis rek maalum ay maalumaat la feese mën nañ ko misaal ci doomu aadama masalan li ñuy wax d doomu aadama dafa am lu ñuy wax DNA DNA mooy chiffre lu wiraasiya nga xamne lu tuut lay doon lo xamne ne mbooleem nit ki leppam information yu aju ci nit ki yépp mi ngi ci DNA bo ni ngay mel ak sa couleur ak say kawar ak sa deru yaram ak ni ngay tond ak bët yeek te nga mbooleem lepp fofu information yi foofu lañ ko dajé information yi maanaam DNA yo boobu mo jur li wax RNA mo jur li ñuy wax protéine na di protéine naa yu jur li wax cellule yi nga xamne mo composé do aadama te loolu mboolem lii dund ci kaw suuf noonu kon mbir mi lépp day dellu ci ay information kon te information muy ab xibaar wala xam-xam xel nanguwut mu am rek te jógewul ci jeneen jëmm maanaam adduna si ak li fi ne lépp ay information moo ko tënk léegi mu ngi mel na tey yow mi bëgg defar kër gi nu ne faaw dañ koy jëmmal ci ab plan ay rëdd ak yu social yoo xam ne yow mën na laa nuru lu amul solo waaye rëdd wu ci ne daa am daa am fi ne lu muy tekki mason bi xam dëgg-dëgg bu ñëwee dana ko mën a defal maanaam bu noppee xam nga dañ ko defal maquette mu gën a leer cee waaye maçon moom bu gisee plan bee rek dana ko mën a jëmmal ba mu nekk tabax comme kër gi ni nga ko gisee nii te ñun ñi nga xam ne jànguñu loolu fi ne bu ñëwee këyit woowu duñ ci xam dara dañ jàpp ne ay rëdd la rek yaa ngi dégg léegi rëdd woowu nag kon am na beneen ingénieur wala beneen borom xam boo xam ni mooy defal plan yooyu nga xam ne moom maanaa xam-xam du lu matériel jumlatu allahu waxidun allahu waxidun mooy yàlla kenn la jumla boobu fi ne yi muy jaar ak yi koy taawu mën naa nekk lu matériel biig bi nga koy bindee wala kere bi nga koy bindee ak fooy bi nga koy bindee yépp lu matériel la waaye jumla bi même xaraf yi sax mën na nekk lu matériel waaye maanaama loolu mooy mooy xibaar bi te loolu du lu matériel loolu fi ne bukkut ak dara fi ne tey xelum doomu aadama bukkut ak dara xam ngeen ak yuur gi wax nañ ko yaakaar naa jotaay wees léegi nag xibaar yooyu nga xam ne moo tënk adduna bi dafa aaja nag koo xam ne ca lay bàyyi ko ci moom nga xam ne moo ëpp moom xel borom xel mu rëy lay doon ku yow lay doon itam damel jégal ku bari xam lay doon ku ku xereñ lay doon itam ndax mboolem niñ tabaxee lii am lépp xibaar yi nga xam ne moo ko lal ay information yi dégg nga te lépp nag noonu la masalan doomu aadama tey dafay bañ ñu guddal waaye buñ buñ ci duggoon fi ne tey cellules yi ko composé yooyu ay milliards yi maanaam tey dañuy wax ne DNA yooyu ñu wax noonu cellule bu ci ne la mu yor ci DNA lu mu tuuti tuuti nga xam ne tey lu tuuti lay doon waaye million million yi million yi CD yoo man moom la yor ci ay information maanaam CD yi bu ñu amoon ab CD nga am ci nag million yi million la muy def ci ay ay ay xam-xam xam nga CD bu dañ ko duy ba mu fees la muy def ci xam-xam loolu DNA DNA yooyu ñoo xam ne lu tuuti cellule bu ci ne la mu yor ci DNA loolu loolu maanaam loolu moo fi moo ne ci ay xibaar nga xam ne ay billion billions yi billions information ñooy nekk ci ci ci kii maanaam jëmmi xibaar yu bari yooyu nga xam ne moo tënk mboolem dundu doomu aadama ak la war a li la war a nekk ci moom lépp loolu xel nanguwut mu jóge ci matériel bi <laughs> dégg nga loolu nag moo tax fi ne nii adduna toll ci ñu yigandoo ne mbir yi du matériel kese am na leen loo xam ni du lu matériel loolee nag bu xa bu ñu xasee nangu lool nak buntu la bu mag bo xamni ñi nga xam ñoy wax ci diine ak ñi jang diine ak ñi jàngale diine mom man nañ ci jaare tasaare diine ci anam go xamni gu yaatu lay doon manam ñaari seekal ñaari xarnu ye wessu liko ko jafe loon nit ñi manam borom xom yi gëna mag ci àdduna dañuy japp ne lepp matériel la ak ginnaaw buntu yi ubbiku na nga xam ne yig nañ ne lu matériel amna na loolu moom day gëna yombal dégg nga manam walu diine bi day gëna yombal ne yalla amna ndax yooyu yëpp ay bunta la loo ci yaar rek fene yi ma wax ne dama ko tënk waaye lu ci ne xam-xam boobu la boo xam ne boo ci duggee lam la yóbbu rek mooy nga yëg ne am na daal kàttan ak xam-xam bu rëy dégg nga ak xereñ gu mag goo xam ne moo sos li am di def kon loolu <clears throat> mooy li ëppoon solo ci bunt bi weesu bunt bu am solo la wàllu ngëm lu mat di waxtaane la lu mat di di di gëstu la ndax ngëm mooy lépp mooy lépp te aduna bi dafa toll ci yi yàq ngëm bari seytaane seytaane dafa am doole man keroog laay fàttaliku ne mooy digluwaat kaseti sëñ Cheikh Sarr yi loo xam ni musuma ko seetlu mooy sëñ bi ci mu jëm xam sëñ tubaab ci mu jëm dafa dajeeg waa dëkk bépp dénk leen ginaaw bu mu dajeeg cheikh si nga xam ne dañuy boroomi mbooloo dénk leen ginaaw bi mu dajeeg doomi cheikh si dénk leen ba mu dajeeg Cheikh sa nag da leen wax ne da ngeen xam ne góor mag iblis góor mag la ko doon tudd maanaam maanaam maanaam tënk ba léegi tinkiku na maanaam seytaane tënk nañ ko yoo xam ne bi mu dem ci géej gi dañ ko ko tënkaloon bu mënta yàq dara waaye fi mu ne nii nag bi mu fiy jógee dafa xam ne tënk ba tinkiku na mooy kenn tënk ko tudd da caa wax sax ne daa gis iblis ci moom iblis ne ko iblis yor lu bon nar jëm ci moom sëñ bi. nee na ma ne ko waxoon naa la bu fi jaarati waxanteeg moom iblis ne ko yow li ma defoon lépp yàq nga ko waaye nag fi ne léegi moom moom mbir yi baax na ndax xam naa ne léegi nga jóge bi xam nga iblis moom yàlla da ko may am na beneen nett li bu bokkut ak bu sëñ Cheikh Sall bi sax boobu ne ko wax ne ko fala yàlla maye fala mu maye xam naa ne moom léegi nga jóge bi te boo fi jógee danaa yàq lu bare bare bari <laughs> moom la koo waxee te nam ko waxee woon yàq lu bare bare bari waaye li ci am mooy ne lam li sëñ bi wax ne tënk ba tënkiku na maanaam iblis ginnaaw si maanaam si bi de maanaam ak bi mu fi jóge lépp tënki nga xam ne fi ne nii la gën a am doole li muy yàq ci ci bis bi ci ay ngëm ak ay kii kenn xamul nu mu toll fi ne ñi am ngëm ñu néew lañ fi ne dama seetlu yu bare bare léegi bu xewee nit ki bu faatoo sax dañuy seet lu mujj lekk ku mujj waxal ba xam am na ku noonu loon ba xam moo ko faat bu yooyu yëpp amul ñu seet ba am na kuñ mën a tooñ fii ci koñ bi ndax <laughs> ko te loolu ñun ñëpp seetlu lañ ko kenn ku def fa nga dëkk dara lu xew luñ jàpp ne yàlla kese moo ko def daanaka amatul waaw loolu nag lu moom di yàq nga moom li fekk yaa jàpp ne am na keneen kuy jëf ku may yàlla ci ci ci nguuram gii nii yow yaa ngi ci sirk moom loolu mooy sirk dëgg dëgg dëgg waaw nga gëm ne yàlla kese moo mën a jariñ moo mën a lor loolu sëñ waa daal ak durru wa nafxu min arrahmaani laysa min al bidaani wa sudaani <laughs> kon loolu lu am solo la mooy nit ku ne fexe ba sàmmonte nga moom xam ne lor moom sëñ bi ak jariñ yàlla kese moo ko mën yàlla kese te lépp saa yu la lor lor tego ci yow yégal ne yàllaa ko namm donte da ko jaare ci doomu aadama yi doomu aadama mën nañu am ay yéene ak ay bëgg-bëgg ak ay wax waaye taxul ñu mën a yàq ceew yow dara lépp luñ la lor itam wala luñ la yàqalit yàlla ko nam jaare ko ci ñoom loolu ngay xam su ko defee nga muñ te yàlla tax fayu fayu ni ma ko waxoon ci jataay wees fayu moom ayut wala man intasara baada zulmihi fa ulaayika ma alayhi min sabil la suñ borom wax waaye wala man sabara wa gafara inna dalika la min azmi l umur mooy ku fayu kenn du ko wax dara waaye ku mën a muñ nag muñ a gën waaye li ma bëgg a xam mooy tooñ yi ñu lay tooñ ak naqar yi ngay am ci àdduna yooyu jàppal ne yàllaa ko namm jaare ko ci nit ñi rek li mu wax ne jaal naa baadakum li baadin fitna na loolu la ci xool mooy yàlla def nit ñi ñu nekk sa wet di la sool ak di la kii li mu ci bëgg a xam mooy ndax da nga muñ walla doo muñ ndax dund gi lépp ak nattu la li fekk yaa ngi ci kaw suuf yëgal ne yaa ci nattu ndax suñu borom moo wax ci alxuraan wa nabluukum bi sharri lépp loo gis rek ab natt la boo amee xéewal keroog ba nga amee ay milliards yu kenn xamul nga xam ne lu ñëpp bëgg keroog nga gën a nekk ci nattu milliards yooyu yàlla dal ko jox te tuuti nga ci war a mooy li nga ci war a dundee rek ak sa njaboot la lépp daa fu mu bëgg nga dugal ko danga xool ba xam yow da ngay aki ah, moo lépp wala da koy def nam nam la kii moo tax natt boobu nit yàlla yi dina ne mu gën a metti nattu nattu xéewal nattu xéewal nit yàlla yu bari seen njëlbeen day metti bu nee ba seen mujj xéew di da leen di te leen am na ñu nit yàlla xam ne bu xéwali ñëwee dañuy ñaan yàlla mu jëlee leen fi ndax loolu natt boobu moo gën a rey mucc ci nattu ñàkk ñàkk itam am natt la waaw du Seydina Omar radiallahu anhu ginnaaw yonente bi keroog bañ ubbee yaakaar naa faris la bilaadu faris indil ko xaniima ba mooy njàppit yi ak xéewal yi nga xam ne moom nañu fa jële ba mu agsee <clears throat> ba tegal ko ci kanamam ndax boobu wax ne ne nit ki njëkk a yanu ak giléem gi njëkk sëf ak ga mujj sëf ca meneen réew ma la maanaam maanaam gileem yooyu toftaloo réew ak réew di indi ay ay maanaam xewal yooyu bañ agsee ba jóor ko ci kanam na uh, Omar dafa jooy jooy yu mette mette mette daal ne lii de yàlla xam naa ne yonent bi la gën a sopp ci man te la tax mu xañoon ko ko jox ma ko jëpp ma ne dama dama bëgg a defal xewal la di nattu bu rëy la moo tax mu mu jooy jooy yu métti métti am na ñu bari ci noonu nag boo amee xewal moom da ngay daal jàmm ni tey moom yàlla da bëgg moo tax boo boo ñàkkee xewal nga yegane yàlla da laa kon loolu tàmbali lañ ci doon lañ ko doon def waaye tàmbali bu am solo la mooy bunt bi ñuy gën daal bunt bu am solo la buntu ngëm <coughs> te kenn ku ne ci noonu mu mu fas ko yéen rawatina fii ñu fi nga xam ne ñu bari ay jànkat lañ boo jàngee ba noppit nga fas yéene waaye li si mën a liggéeyal yàlla ci jamono ji moom mooy dekkal ngëm ci ci ci ci xol yi ngëm moom dafa toll ci sànku ak ak màggat ci xol yu bare bare bare liñ jeexale woon bunt bi itam mooy li sëñ bi wax ne wa lafdu laa ilaha illa allah muhammadun arsalahu ilahu salla alayhi bi salaamin fi jami sahaabi an alihi lahu sami afdalu ma nataqahu man yadkuru mooy tudd yàlla boobu dañ caa jaar jaar bu gaaw waaye dañ ci indiwaat yu tuuti rek mooy tudd yàlla moom mooy buntu ngëm li tax sëñ bi sëñ moom da ko boole ci buntu ngëm bi waaye ndax laa ilaha illallaah ji moo tax mu boole ko ci waaye gis naa ne loolu it lu am tanaasub la ndax bu tudd yàlla mooy buntu ngëm wàllu yu wudu tudd yàlla amul <laughs> maanaam wàllu yu wàllu yëpp seen seen jaar seen tàmbali mooy mooy fiñ ko jaar fiñ mooy buntu tudd yàlla rek tudd yàlla gu bari buñ gisee yaakaar naa abu aliyin daqaq moo daa wax kalima bu siiw boobu nga xam ne nit yàlla yëpp ginnaaw bi lañ koy wax mooy li ñuy wax li muy wax ne ad dikru mansurul wilaaya mansurul wilaaya waaw mooy wilaaya daal bunt bi dégg nga màndargam wilaaya itam mooy lan mooy tudd yàlla <coughs> imaamul Qushayri ca risalaam ba waxna ci lu bare bare ba dawan adhikru unwan alwilaya wa manar alwuslati wa tahqiq alirada wa alamat sihhat albidaya wa dalalat safa alnihaya fa laysa wara adhikri شيء وجميع الخصال المحمودة راجعة إلى الذكر ومن شاءها عن الذكر واخ جام سولو ما ديفاني تود يالا موي ماندرغام ولايه ني خامي ولي يو بوكنا سي سين تود يالا غو بري مثلا بو كيسه تي مثال سين توبا ak ña ko toppoon rek day gis ni ñoom ñoo ëppoon ak tudd yàlla maanaam waxtu wu ne ñi ngi jàng kamil Sëñ Tuubaa mooy jëmm joo xam ne dafa am lu ñuy wax daari kam daaray kamil Sëñ Tuubaa lañ ko lañ ko ñëkk a xamee mais bi sedd nañ wàccee ñeenti kamil yoo xam ne moom daa sax moom bu ñu jëlee tisbaar wàcce benn kamil bu ñu jëlee takkusaan wàcce benn kamil guddi gi ñu wàcce ñaari kamil yoo xam ne duñ ko xool maanaam dañ koy tari waxtu wu ne itam ñu ngi bind ay kamil li ñuy jàng ci xasida itam yàlla kese moo ko xam wax na ne bu lu mel ne gàmm yi moom kenn ku ne daa beru ci roq ni ñuy def dajaloo kenn jàng loolu boobu amutoon dina dem mbooloo dee toog fii jàng kenn taxaw fee jàng kenn ki kenn du yàqal sa morom nag waaye kenn ku ne day nekk ci di yëkkati di jàng la muy jàng ñii di def ay tudd yàlla laa ilaaha illallaah def leneen ak leneen moo tax tudd yàlla moom moo moo sos ak ak murit murit yi bu njëkk boo gisee dawuñu maanaa seen waxtu yépp tudd yàlla dañ ko def ba ci bu ñuy nekk ci liggéey ak lépp dañ koy booleeg laa la ilaha illallah nga xam ne du dàkk moom loolu mooy murit yi daa tarbiyewuñu ci loolu lañ daane nga xam ne moom waxtu ne ñu ngi ci tudd yàlla ndax tudd yàlla mooy buntub dégg nga wilaaya ñi àgg ci yàlla itam mooy seen jaaruwaay ndax mënta ñàkk doonte xeet tudd yàlla yi nag dafa bari moom nit kii itam ni ñuy xamee ne ak tàmbaleem wér na mooy mu tàmbalee ci tudd yàlla gu bari li ñu xamee itam ne ak ak ak mujjam sell na itam mooy mujj ga ànd ak tudd yàlla gu bari loolu la imaamul Qushayri yi wax moo tax dafa wax ne ginnaaw tudd yàlla dara nekk ko te mboolem jikko yu baax yépp tudd yàlla ci lay sosoo di nga ci lay dellu itam moo tax yonent bi wax ci xadis bu am solo boo xam dinaa ko wax lu bare bare mooy li wax ne ala unabbiukum bi xayri amalikum wa azkaha inda malikikum wa arfaiha fi darajatikum wa xayrun lakum min ictaai dahabi walwaraq walwariqi wa an talqaw aduwakum fa tadribu acnaaqahum wa yadribu acnaaqakum qaalu wa ma daaka ya rasulallah qaala dikrullahi azza wa jalla dane xanaa du ma leen tegtal li gën ci li ngeen di jëf xayru amalikum te gën a sell fa seen borom nga xam ne moom lu ngeen yóbbu ca yàlla looloo ko gën a sell loolu la ci yàlla gën a soxla te itam moo gën a mën a yëkkati seeni daraja xam nga jëf ju ne am na fu mu lay yóbbu tudd yàlla nag mën na laa yóbbu foo xam ni beneen jëf mën na loo faa yóbbu te moo gën ci yéen ngeen di joxe alal ju bari muy or ak xaalis ak zahab wal wariq wariq mooy xaalis fidda moo gën ci yéen jihaad ci noonu yàlla yi mooy di doog seeni seeni baat di cawante ñoom ay jaasi ay jaasi ñu ne ko mm, saxaaba yi ne ko loolu lu mu doon yaa rasulallah mu ne leen dikrullahi azza wa jalla mooy tudd yàlla subhanahu wa taala doy na ci rek beneen xadis boo xam ne keroog maa ngi ko doon junj jeetaay bi mooy li yàlla sun borom sun borom jox li mu wax xadisu qudsi bi nga xam ne xadis muttafaq alayhi la nga xam ne sun borom da wax ne ana inda zanni abdi bii wa ana maahu xiina yadkuruni sama jaam bi li fekk mooy tudd rek na yëg ne maa ngi ànd ak moom soo toogee ti tudd yàlla yàlla ngi nekk ak yow yàlla ngi nekk yow yàlla sori benn yoon geneen maaya nag maaya dina tëbb lañ lañ jublu foofu jëf yépp yàlla moo koy jëf dëgg dëgg dëgg dëgg nga léegi nag doomu aadama nag des maanaam dafa bokk ci li nga xam ne moom moom moo wér te mënta ñàkk mooy teqale farq mooy teqale diggante xaaliq ak maxluuq ñaar yu mënta ñàkk waaye Sëñ Tuubaa biñ koy warante ca ca Mauritanie bokk na ci masara yi nga xam ne moo fa moo ca wax wax ju leer joo xam ne ginnaaw ba la coow yëpp dakk te mooy masala max yi yàlla nan la ànd ak noonu moom dama leen wax mooy képp ko xamul jëmm jënam mel te nga mënoo xam mahiyya bi ni mu ànd ak doomu aadama mëna su ko loolu mëna su ko expliquer du luñ mën boo ko doon jéem a leer sax du leer boo ca même boo ci xamoon dara mëna koo expliquer ba mu leer <coughs> waaye xam ne dafa am mahiyya xaasa geneen ànd goo xam ne xam nga wa huwa maakum la wax dégg nga aynama kuntum mooy fu ngeen ne maa ngi ànd ak dégg nga léegi nag su ne da koy tudd nag dafa am geneen mahiyya boo xam ne bokkut teg ba mu àndoon ak ñëpp moom lay àndaat ak yéen dégg nga te loolu rek dara dara dara ëpp solo yàlla yàlla sëñ bi mooy mooy lépp di mboolem loo fi gis mu dox rek yàlla ko doxal loo fi gis waaye am ko yàlla ko ko jox sa dund gi yëg sa wér gi yarama lépp ci loxol yàlla la ne bu ko neexoon mu tawwi sa dund dara du la jot bu ko neexoon dégg nga mu xëy soppi la nga bokk ca nit yàlla yi gën a kawe gën na rafet yëpp ay jikko lu ko neex def moom yàlla dara tawu ko yafalu yaxtasu bi rahmatihi man yasha waaye maanaam yàlla lu ko neex def dégg nga kon kooka bu fekkee ne mi ngi ànd ak yow loolu si mooy mooy lépp solo tey danaa koy daanaa ko misal ci ñun ñi ñëpp nga xam ne noo ngi fii ci daari Sëñ Abdourahman ji masalan suñ ne noonu Sëñ Abdourahman la fonk ba dalay fàttaliku dalay tudd da ngay bëgg bëgg mu rëy rëy ndax Sëñ Abdu ñëpp ko sopp te yàlla tax waaye bu ñu la woon tey borom darul Muxti day moom moom it noonu moo la moo la bëggee ba di la sopp ba ànd ak yow nee na loo def rek mi ngi ci ànd ak yow xam nga da ngay gën a bëgg eh, imaginer bu ñu leen Sëñ Tuubaa mu baax ma nee na Sëñ Tuubaa nag moom moo la moo la bëggee nag moom moo la sopp ba di la bëggee di la fàttaliku ànd ak yow ci li ngay def loolu da ngay yow moom bu da ngay dégg ak mbégte moom parce que Sëñ noonu ñëpp moom lañ sopp waaw loolu bu ñu la ko waxoon ci yonante bi da ngay gën a bëgg a bëgg yàlla na mi nga xam ne ñoo ñëpp nag moo mooy mooy mooy seet buur ñoom moo leen sàkk ñoom ñëpp nañ melin moo leen ko def yonente bi ak sëñ Tuubaa niñ ko waxee ak gaañu wax ñëpp ñoonu gën foofu waaye nag nañ mel yàlla leen ko def dégg nga yàlla leen def nañ mel léegi yàlla moom nag boo mënee am jataayoo ak moom nga xam ne boo toogee di tudd yàlla mi ngi jataay ak yow anaa jëli sumam lekkaran fadkuruni adkurkum boo koy tudd mi ngi lay fàttaliku moom boo ko bàyyee xel nga def ko soxee xel mi ngi lay tudd loolu dara gën ko rëy moo tax tudd yàlla mooy lépp waaw suñu borom da caa teg na in dakarani fi si nafsihi dakartuhu fi si soo toogee yow kese di mu fàttaliku ma di la ko fàttaliku man kese subhanahu wa taala wa in dakarani fi mala in dakartuhu fi mala in hum xayrum minhum soo toogee ci biir mbooloo di ma tudd mooy ni ñu kuréel di jàng xasida ak yu deme noonu ak suñ jataay yëpp jataay tudd yàlla jataay waxtaan yi jataay tudd yàlla nee na moom it dana toog astafurullah lazim dana nekk bokk ci biir bu gën ñii nga àndal di la fàttaliku te yàlla di la fàttaliku loolu sëñ bi loolu dara melut ni moom dara dara dara melut ni moom waaw dara dara melut ni moom wayn mu teg ca nag wa in taqarraba min ni shibran taqarrabtu ilayhi diraan maanaam booy tudd yàlla yaa ngi dox wuti yàlla te yàlla nee na boo doxee fukki <coughs> centimètre mooy lu mel ne pa loxo bi nii fukki centimètre boo ko doxee nee na mu dox mètre ziraan taqarrabtu ilay ziraan ma dox yow mètre wut si la wa in taqarraba ilay ziraan taqarrabtu minhu baaxan boo doxee mètre wut si ma ma dox kilomètre wut si la macha allah wa in ataani yamshi ataytuhu harwala booy dox di ñëw man dama lay damay daw wut si la te li ci xorom mooy yow doo kenn doo tus doomu aadama du dal amul solo daal te ku ñàkk la te yàlla mënta mënta ñàkk yàlla ci leen sa dund gi moo ko yor moo la koy moo lay jox fi ne seconde par seconde moo lay yónnee dund bu téyewoon loxoom ci yow nga dee li ngay am ci xéwal yépp imdaad moo la koy def waxtu ne moom soxlaalu la dara xam nga yàlla soxlawul la dara di la yàkkawli loolu lu xoromu la mooy li gën a yéemu maanaam ki nga xam ne ganiyun yatawaddat loolu mooy yéemu koo xam ni soxlaalu la dara amul yooyu soxla yow teeb jaamu nga moo la moom moom bu ko neexoon jël la dugal sawara du ci fen yi la yàkkawli nag yow yow mi nga xam ne nag amoo tus xam nga ku ñàkk di yàkkawliku loolu xames na ko waaye koo xam ne maanaam soxla maanaam eh, amul nekku dara di yàkkawliku loolu loolu loolu kenn wasu koo gis moo tax boo gisee nit yàlla yi loolu rek lañ sooboon nit ñi suñ tubaab bi mu ñëwee tudd yàlla gu bari la mag ñi dara wax ne xayru taami lil muridi saaliki dawa dawaamu dikri dil jalaalil maaliki maanaam murid bi daa war def ak lekkam muy tudd yàlla gu bari jataay yi nga xam ne amuñu solo yëpp nga teg ko fi suuf te xam ne loolu moom amul solo moo tax sëñ bi jeexale woon ko ba di wax ne amma dawaamu dikri fa huwa akbaru min kulli ma kaana al muridu yuksiru lépp lu lu murid bi bari bari tudd yàlla ko gën ci moom sëñ Tuubaa sax dara wax ne waalam bi anna dikra quutul qalbi maanaam sa xol ak sa ruux leen lay dunde muy tudd yàlla lekk yeeg naan yeeg eh, kii nii loolu jëmm jee koy dunde waaye ruux gi moom li muy dunde mooy tudd yàlla soo dee tudd yàlla tudd yàlla nag lu yaatu la julli fi ne ci tudd yàlla bokk dégg nga aqimi salaata lii dikri la suñu borom wax tabaraka wa taala fi mu ne <coughs> xol day xumaag yonent bi daa wax ne xol day xumaag dégg nga waaye bu dee weñ gi ñuul gi xam nga bu xumaagee am nga loo koy daase ba mu xonqaat wala ba mu weexaat tàll bopp waaye yoon yonte bi da wax ne wa jila inna jila al qulubi dikrullahi azza wa jalla maanaam xol leen rek moo koy moo koy xaccaat ba mu leer nañ mooy tudd yàlla ndax mooy yàlla goo def wala loo xool ci bon wala nga jëf ko wala nga gis ko wala nga dégg ko am na tomb yu ñuul yu muy tomb ci sa xol loolee nag la koy xacc di ko raxas ba mu leer nañ ndax xol moom lu leer la ni ma ko waxee xol mooy ruux maanaam mooy diggante ruux ak ak ak euh, li ñuy wax nafsu muy jëmm ji nga xam ne nafsu bi nga xam ne bakkan bi nga xam ne mooy doxal jëmm ji nii mooy wetu jëmm wet gi féete ak loolu teqali wu ko teqali ko wut ak ruux waaye li doxal jëmm ji loolu lañu tudde nafs nga xam ne mooy fii bànneex yeeg yooyu dëkk nekk ci yow su ko dee xol nag moo dox digganteem ak ruux nga xam ne dafa am wet gu féete ak ruux am wet gu féete ak bakkan léegi nag xol boobu nag moom day taq di tilim di xumaat sëñ Tuubaa dara wax ne radiyallahu anhu mi ngi ci jawaamiul kalim bu Cheikh Baye Sëriñ Silla boobu dafa wax ne sa bët yi ni mel noonu la xol yi mel dina tey bët léeg-léeg mu fattu léeg-léeg mu mu mu mu mu mu euh, ramat ñu ko mu wànnent waaye léeg mu gumba far benn waaw Sëñ Tuubaa nag dara wax ne yi nga xam ne amut solo yooyu boo ci xalaat sa bët ci jamono yooyu dafa fattu booy xalaat lekk yeeg naan yeeg nag wañ rey feeg ka jaaroon feeg mbubb solo nag yooyu nga xam ne yow ay bàkkaar doo ko ci waaye amulu la solo yow yooyu boo koy xalaat sa sa bakk sa xol dafa fattu ci jamono yooyu loolu mooy fatt xol soo dee xalaat nag li nga xam ne nag dégg nga dañ ko sib sëñ bi wax ne boo loolu moom mooy wànnent mooy jur wànnent ci xol yuñ sib yi nga xam ne dañ ko sib moom te yooyu baree bari la ci diine bu fekkee ci ngay jëmale say xalaat dégg nga boobaa yow yégal ne sa sa loolu moo ko jural wànnent waaye boo xalaat booy xalaat nag ci yu xaraam moom nee na loolu mën a jural ngumbam xol ngumba waaw laa ab saaru walakin taamal qulubu allati fi sudur maanaam xol mooy gumba waaw bët yi moom day muuru rek waaye xol mooy gumba xol boobu nag bu gumba jeena lu mën a gis leeru leeru yàlla te xol mi ngi mel rek foo ko jëmale rek foo loolu moo ci moo ci tàppe seetu boo ko jëlee ci nit ñi mu nga gisi nit waaye ko jëlee boo ko jëlee jëmale ci seng bi ay seng rek gis suuf suuf rek gis xol bit la su fekkee li nga ci xalaat mooy mooy mooy mooy mooy yu xaraam yeeg film yeeg théâtre yeeg yu doy waar yooyu nga xam ne daanaka amul la njariñ te mën nga ci amé sax bàkkaar ndax yu xaraam de rek mu am ci yooyu fekke loolu da nga xalaat loolu moo gaaw ci jural la ma xol yàlla ci yàlla musal kon tudd yàlla rek mooy li xacc xol di ko leeral ba mujj leer nañ nga xam ne nit yàlla yi dañuy àgg ci seen xol leer ba buñ gëmmee sax mbir yi day leer ci ñoom nii muy leer ci yow bëccëg bi nii noonu la buñ gëmmee noonu lay leer ci ñoom nga xam dañuy dem ba mujj léegi du yemate ci gëmm nga xam ne buñ dee xool it leer googu dañ koy gis yeneen mbir la waaye yooyu it du taxaju kenn yooyu moom nit yàlla yi tuddee allawaamix ak ak tawaaliq ak bawaariq yooyu dañuy wax ne ñoom mooy seen mooy seen tàmbali yooyu du am solo tam waaye moom li am solo rek mooy tudd yàlla ak jege yàlla daal yi ci des yëpp nag amul solo tudd yàlla laa ilaha illallah baat bu am solo la loo xam ni moo gaaw ci rey bànneexi bakkan yi nit yàlla yi loolu ñu wax yooyu nag bu dee nag ñoom ci lañ la laa jox yeneen i baat yoo xam ne lu mel ne al ismul mufrad nga xam ne mooy rey lu mel ne jàngoro xol yenn ay rëy yu ne demee <coughs> waaw yooyu nag ku tëb tëb dugg ci noonu rek mën nga am jafe bu rek yooyu man koy joxe da ngay fexe ba ba nga am ci ndigal lu wóor mu ngoog kon loolu mooy gàttaluk bunt boobu doy na ci rek ne yonente bi ni ma ko waxoon daana wax ci xadis bi nga xam ne moom la eh, alxaakim nettali ak ahmad imaam ahmad wax ne yonente bi dara wax ne jaddidu imaanakum daaxam na ngeen yeesal seen ngëm ñu ne kon nan lañ koy yeesale mu ne jaddidu akthiru min qawli laa ilaha illallah bari leen lu ngeen wax laa ilaha illallah bu ngeen ko waxee seen ngëm day yeesal kon ngëm li koy suuxat li koy gën a màggal mooy bari la zikr laa ilaha illallah te laa ilaha illallah benn la ci zikr yi istighfar ci la bokk salaatu ala nabi ci la bokk xasida yi nag loolu moo ko moom la day moo fi daje moom yooyu mooy wax ni moo ci daje su ko defee itam ñu xam ne jàngal xuraan moom yonent Sëñ Tuubaa daa wax ne wa afdalu zikri kitaabullahi moo gën ci xeet tudd yàlla yëpp moom moo ci féete kaw jàng alxuraan su ko defee itam muy dem rek xeet tudd yàlla yu bare bare la <coughs> ngok kon xaw nañoo mën a mën a yem foofu bu ko defee nag ba bee ba weesu ba weesu bii dañ doon résumé rek far wax samay wax daa bari wax bu bayit ba far jeexal waxtu yi waaye li am solo nag mooy tudd yàlla moom li tax ñu tudd yàlla dëgg dëgg mooy sikru xal bi moo tax ñu tudd yàlla mooy xol xol buy fàttaliku yàlla xol boo xam ni day ànd ak da nga am yawute di fàttaliku yàlla di tudd yàlla waaye làmmiñ wi nii taxul ñuy wax boo mënta am na xol bi nag dikrul xal bi da ngay tàmbalee ci dikrul lisaan bu yàggee mu jox la dikrul xal bi maanaam lii mayee sa xol di tudd yàlla di ko fàttaliku waxtu ne mooy mooy tudd yàlla làmmiñ gu bari tudd yàlla làmmiñ nag taxut taxut taxut ñuy wax moom taxut a jóg gaañ waaye nag tey boo mënta tënk sa xol ak sa xel da ngay tënk sa làmmiñ wi rek mën nga koo tënk moom su yàggee yàlla dana la taw feexal sa xol da nga am leeru tudd yàlla dugg ca ba mujj dootu xamati leneen lu may subhanahu wa taala di ko fàttaliku ak li aju ci yàlla rek waaw ndax tudd yàlla buñ ko wax jubluñ ci rek maanaam yow sa xel nekk ci yàlla kese maanaam boo dee fàttaliku bi yaa ngi ci tudd yàlla boo lihat fàttali ko sëñ tubaa ak di waxtaane mbiram yaa ngi ci tudd yàlla dégg nga lu baax rek lu aju ci diine ba ci lislaam bu fekkee julli la ngeen waxtaane koor ak lépp loo lu baax lu aju ci li yàlla gërëm ak li njubug suñu borom gi rek yaa ngi ci tudd yàlla ba tey kon loolu mooy gàttalu buntu tawxiid bunt bi ci topp nag wàllu julli lay wax insha allahu taala bee di ñëw nu tàmbali ko ñu ñaan yàlla fatli ko waxtu ne denga te mu nongol nu mbolam ni ñi def te yàlla tax seigne touba nak ci Masaalikul Jinaan wax na ñaari mbir ta ñak ci tuddu yalla moy wax ris alal ikhlas wal ikhfa ya kan naa ko wax moy ñaari mbir mën ci ñak tuddu yalla da aji ñaar moy ikhlas ak ikhfa ikhlas moy lan moy mu sel moy yalla kese tax bul tudd ngir nit ñi bul jàng ngir nit ñi bul def ngir nit ñi gis la ixfa mooy di ko nëbb sa kem kàttan sëñ bi dajaa teg kem kàttan dajaa lu am solo mais dafa wax ne is julluma baana lahum fala yaksuru nafuhu li nit ñi gis li ci ëpp njariñam du bari parce que nit ñi gis buñ la ci waree bindal téeméer man la ci bindal dix rek te boo nëbb woon def ko ñu bindal la ci masalan deux cent wala mille ci ay tuyaaba ci misaal moo tax li nit ñi gis sëñ bi wax ne njariñam du bari moo tax mag ñi da nga daa gis ñoom ci ñi gënoon mën a jaamu yàlla ci lañ bokk waaye li ñuy def li daana kenn ko xam yu bari sax dañ daa làqutu def yeneen mbir yoo xam ne nit ñi duñ leen jàppe nit ñu baax moom te loolu ci doxinu murit gu njëkk gën daal maanaam murit bu njëkk murit ci cosaan loolu moo doon seen doxin mooy li ñuy def ci lu baax fi daana kenn ko xam wala boo ka ci xam dara mooy ka dëkk ñoom ak yu demé non motax li señ bi wax nak wa xeyna ci lay dem dañuy wax ne dégg nga lu waaye maanaam maanaam waxris alal waxris moy na nga xir alal ikhlasi wal ixfaay yaa ngi defal tawfiq no ngi jégg lu bax di ñaan yalla mu boole lu jéggal lu ñëpp ci dara yi Bamba ci defal tawfiq ndax yi yépp it ku yalla dimbali rek mo ci manam tawfiq yalla mom señ bi da nga am ndimbal daal mu tànn la boole ca gaay waaye góorgóorlu nit bari na ngóora ba tey te bokkut ca gaañ agut moo tax taw feex la ci bare bari taw feex la doon yan yàlla defal taw feex mas ki foofu fekk am na benn laaj rek ñu mottale ko mu nag ñu ñu ñu ñaan sonn si lool sax xam nga xel moom dañ ko mën jëkkee doo ko mën téye moom nga koy kii nii mu jiitu ko doo ko bàyyi xel waaye yenn saa yi nga toog doo def la sa xalaat sa xel na ci moom rek sa xel na ci moom maanaam diiru li nga doon def leeneen la toll noonu nga koy xalaat comme yooyu lu koy waral maanaam ñàkk seytaane la wala comme loolu lu mu doon ah, laaj bu laaj bu am solo mooy xelum doomu aadama xam nga yow mënoo ko tënk tey mën nga tënk làmb wi ci muy wax laa ilaha illallah wala muy jàng xasida wala muy jàng alquran wala leen waaye xol bi moom mënoo ko tënk léeg-léeg nga lijjanti ba mu ñëw rek waaye nes tuut mu delluwaat <laughs> te li am solo nag mooy xol boobu nag xol boobu li mu am ci teewlu loolu mooy li ëpp solo teewlu nag làmmiñ wi li ngay tudd nii dañ la koy fay moom làmmiñ lim lim da nga am tuyaab léeg-léeg itam doo nekk ci ci ci ci ci ci comme ni sëñ bi wax nii léeg nga xam ne doo nekk ci tudd yàlla ko te sa xol teewlu loolu nag moom man li ma jàpp mooy tey tudd yàlla yaa nga daa def te teewlu woo moo la jural teewlu gi tey nga xam ne defoo tudd yàlla tey koo xam ne tudd koo xam ne du tudd yàlla benn yoon daanaka teewlu googu du du gaaw agsi ci moom yaa ngi dégg maanaam tudd yàlla yaa te ànduk teewlu moo la jural tey teewlu gi xëy na ak jéem ak jéem gi ngay jéem a xeex sa xol ngir mu ko ci yàlla loolu moo lay jural maanaam loolu mooy jihaad bi wala dina jaahadu fii naa fii naa la wax xam nga foofu mooy ci ñi nga xam ne maanaam dañuy jihaad jihaad ci yàlla fii naa wala dina jaahadu fii naa la nahdiyannahum subulana maanaam yow li nga mën mooy jihaad ji waxtu wala yàlla taw feexal nag naan ak teewloog yu demee noonu loolu moom ci moom la aju mën na ko defal ci biir bi nga nekkee ci tudd yàlla gi waaye mën na ko defal itam ci biti loole te loolu xéewal yàlla la yoo xam ni léeg-léeg mu may la li ñuy wax yaqadatul qalbi mooy xol bu yeewu jar waaw léeg nit di wax benn baat baat boobu def ci yow masalan xaal boo xam ne da daal di yeewu jar sa xel te lépp loolu lañ tuddee ay axwaal xaal lañ ko tuddee xaal mooy loo xam ne day dem ak a dikk bu demee ba sax nag loolu lañ tuddee maqaam loolu lañ tuddee maqaam waaye yooyu nag yow li nga mën rek mooy li nga tollal mooy tuddu làmmiñ yi nga nekk ci bu dee xasida nga yor dee ko jàng rek te bul ci bulal ci yooyu yitteel itam sa xel nag moom del jihaad ak moom saa yu demee ba ba nekk ca marché ba indiwaat ko eh, defaat ko ci sëñ bi ak yàlla ak li nga xam ne mooy mooy mooy yi mat a teewlu loolu moom jihaad mooy jihaad yi nga xam du jeex ba keroog nag xel mi génn ci yooyu yëpp nag moom nit ki dana dem ba xel mi du demati ci yooyu yëpp am na itam yoo xam ne mooy sabab eh, mooy sabab yooyu bunt yi yooyu muy jaar loolu Imaamul Xasaali wax na ci lu bari bari ki nga xam day seetaan télé masalan xam nga télé lu ne ci jaar te lépp loo xam ne image bu jaar rek nga gis ko fi ne day des sa sa sa bopp maanaam bopp day denc ay image boo seetaan ak film film boobu fi ne seetaan nga ko ngi ci bopp bi fi man ngaa mën ngaa benn bis ngay julli rek film ba del siwaat <laughs> loolu day am image yooyu day del si moo tax bunt yi nga xam ne lay jaare mooy fexal ba ba ba moo tax nit yàlla yi am na ci nit yàlla yu bari yoo xam ne dañ daa bëgg seen yaakaar imaamu Nawawi yi wax na ci lu bari bari mooy sa digg ak fi ngay jullee bu mu am bu fa dara dox maanaam sa xos li ngay teg sa bët de de ko kii dee de ko bàyyi xel masan fi ngay tudde yàlla fexel ba bu fa dara ne lu lay fàbbi wala loo xam ni day day tax ndax bët lu mu rek xel xalaat lan la yonente bi sallallahu alayhi wa sallama masañ koy ne am mbubb waye bam ko solé julli ci ginaaw ba da koo simmi daal di sol mbubbam mu magal moom solon ne ko ne len mbub mi xaw tut mu fitmal ma fitnal ma ci julli gi motax beut mom lepp lum wala ma santay bo gisee ñuy bëgg boy julli sa xaalis yeeg li nga dañ sa bos lépp nga tek ko fele lool la ndax man nga di rek far xaaliss bi yëngatu sa xel tàmbali dem ci bi xaaliss bi lu ci wara jënd nu ko wara boo gisee itam ci fiq xam nga dañuy bëgg bu ah bu lekk gi taaje julli teew lekkal ba noppi ndax bu fekkee da ngay julli te reer bi teg am nga saxel mën naa dem ci reer bi <laughs> moo tax kon loolu moom mooy mooy li ci solo mooy dafa am sabab yoo xam nag mooy indi xalaat yooyu xalaat sabab yooyu da ngay fex ba sakku mooy yi ngay xool nii ci sa ci sa ci sa ci sa ci sa kii loo mën a néewal daal yi ngay yi ngay xool ak yi ngay dégg mën naa wàññi yi ngay xalaat man tax julé ak boy ki day mujj daanaka sa xalaat ci yoy rek na ma tay tey fekkee da nga dig nga diglu waxtaan yi rek ak sam ak yoy soy julli yoy rek la saxal di saxal du ne ci len ki nga xamni seigne sam rek lay dig ak Cheikh Abdourahmane ñoo kooku bu julli yoy rek waxtaan wa lam ci waxana yoy moy nek te yoy li fek mi ngi mi ngi nekk sa fi da yaa ngi ci lol ci dudd bok ni lol ci dudd yalla bok <laughs> ci fàttaliku yàlla bokk yalla yàlla defal te laa ilaaha illallaah mooy àggee day wax wala comme maanaam lan dafay maanaam loolu daa mel ni baat yëpp la xam nga ilayhi yasadul kalimu kalimu foofu mu fassirun yu ba dañ ko firee kalima tawxid te mooy laa ilaaha illallaah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaye baat yëpp la lépp lu nit ki wax rek day yéeg léegi nag bu dee jëf yu baax yi ñoom dañuy nekk ca wetu aras yonent bi da wax ne dañuy am daw yi mooy ak ak yëngatu boo xam ni boo xam ni ak dañ fay màgg itam boole ci lu fay màgg la maanaam jëf joo wax rek fi ne baat boo wax rek fi ne baat boobu génn na doon jëmm joo xam day day yéeg ilayhi yasadul kalimu tayibu jëf yi nga xam ne jëf yu ban la moom duñ dem ca aras moom feneen la dem waaye jëf yu baax yi baat yu baax yi moom aras la dem te dañuy am foofee seen yëngu bopp dañ fay des maanaam kàddu gi day wu fu toujours foofee lu mu gën a répété wu ñu lay bindal tuyaaba ñu la koy bindal feneen maanaam moo tax baat yooyu du jeex fi yawmal xiyaam moo tax suñu borom wax na nit ki dañ ko wan bitaaq boo xam ni boo xam ni day gudd lool ci ay jëfam yu ñaaw waaye benn baatu laa ilaaha illa bu ma wax mooy ñëw farle dégg nga maanaam dañ ubbi bitaaq bi téere bi bu ñu ko woon day mooy ba fa bëtam yem day xool lépp di ay ci lu def ci lu def na nangam def na nangam ko ba waaye benn baatu laa ilaaha dégg nga mooy ñëw far lépp li ko waral mooy du woon benn baat ba mu waxoon xam bàyyi lay lay la dañuy ne benn yoon la loon farata ci seen fekkee nit ki daa daa daa ci njullit moom kooku ne même bu ko waxut fi ne tey maanaam maanaam maanaam maanaam du du wàññi dara ndax mel ne dafa dafa war moom boo ko defoon nag bàyyi nga lu war rek bu dee nag dangaa nekkoon ci kéefar moom dugg si moom kooku wax ki moom waa du mën a ñàkk moo xam moo la ci dugal moom léegi benn baat bu fekkoon moom nga yem nag baatu laa ilaaha illa benn yoon boobu kese waaw même bu yéegee ba àgg fa aras dafay des di rek dafay nekk rek di répété wu ñu lay bindal tuyaaba jooju moo tax lu baax am solo waaye yekkul moom dafay nekk di wax ak ñeneen ak yooyu dafay ne rek di mbindeef moo xam ni dégg nga dafay ne di tudd yàlla rek di jëmmal tudd yàlla foofee yàlla yàlla defal tawfeex أعوذ الحمد لله رب العالمين